suis avec vous. général. mos a gis lii. gis nga mot. chef suprême rek ko sañ. waaw. ñëw rek. da nga leen a gën a fort rek. waaw c'est fini de. Ah. zéro zéro bi mbaa un bi rek topp ci six bi. waaw. Ah. zéro bi mbaa un bi rek. Ah. waaw waaw. waaw waaw moom bismillah toogal bi ñëwal ni sant dégg nga. waaw asalaamaaleykum. ah. amiin. ah kon nag xanaa. waaw mu koy Sapa Dieng. sant naa ko moom. waaw kii waaw ak kii itam. kii mooy Abdou Aziz Mbaye. ah Abdou waaw waaw waaw. ah waaw. ñaari mbir d'abord xam nga waroon naa ñu ko avisé ba léegi yàlla gàllankoor yoon na ñaar yëpp pare maa ngi ko doon waaj. loolu moom xam nga maa maa libéré wu. voilà libéré wu ñu. promoteur mooy taxawaay. waaw loolu moom bëgg naa ci. mbetteel jël si ñaan yi. mbetteel bi moom mbetteel lu mu mbetteel. pourtant yéen a naan ko moom tey. ah Amath na nga def waaw ñu ngi sant bu baax. waaw moom moom jaale si woon na waaw waaw waaw moom yéene woon de. waaw waaw moom dama dama ko teggiloon waaye nag. dama ko fa teggiloon dama ne ko. waaye nag faaw ñu ñëw. waaw waaw waaw. tabaarakallah waaw moom xam nga comme ñëpp dañ ma daf ci yow. waaw ba noppi te man sa at jawwal damay wëndeelu waaye nag ñoom il ma jox leen information dama laa waxoon ni la dina ma dégg nu nekk nu nekk positivement négativement waaye xaar ma mu ñëw waaw léegi nag may def wax naa itam avant-hier ni lu ma defoon Abdoulaye Wade dinaa la defal lu maa ko wax tudde la doom tudde sa soxna doom hmm? léegi nag bu ko defee comme am na lu ma waxoon xale yi dafa ni leen ñoom dañoo maîtriser porte à porte ñii nañ leen bàyyi ci seen liggéey ci seen façon te nga bañ leen a def loo porte à porte ndax loolu xale ko man xale ko man te commune bu nekk rek am na fa xale yi leen ko mën a defal yéen ngeen nekk seen liggéey man daal loolu moo ci sama wu sas waaw maanaam man dinaa jox xale yi wut euh, soixante six mille euh, jeunes yoo xamante ni bii porte à porte mooy doon seen métier discours bi du daal loolu gàtt la waaw may leen ko mu eggal liggéey bi dès le premier tour six bi mooy jërëjëf a teeti zéro lañ ci teg wala un 61 eh? wala 60 rek. 61. 60 wala 61. waaw 6 bi dama ko waxoon ni ko loolu màggalu Tuubaa laa ko waxoon ne xale yi 6 bi nañ ko ci tegal zéro ca kanam wala ñu tegal ko ca 1. su ma ko xasee wax nag. bu ma ko xasee wax. bu ma ko xasee wax dañ koy mentionné ca kaw. waaw. bu ko kon nag